asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci seydina muhammad salallahu taala alayhi wa sallam ñoo ngi seen télé bu mag bi di Proxi euh, di télé boo xam ni kenn dootu ko présenté fii ci département de Kër tey nag ñëw fekk si ki nga xam ni kenn dootu ko présenté sur le plan national kenn dootu ko présenté tamit sur le plan international di Alaaji Bassirou Thiam Dogo di président des communicateurs traditionnels bu département de Kër Massar tey jii nag waa Kër Massar waa Tivaouane Peulh ñoom ñëpp booloo bokk ndey bokk baay ne dañ koy sargal liñ koy sargalee ndax keroog bi nga xamee ni dëggal nañu les communicateur traditionnels yu nekk ci département bi dañee kenn moo ñu doy kenn moo ñu lañ bëgg mu jiite ñu moom mooy El Hadj Bassirou Thiam Dogo tey jii nag ñu ñëw ci këram di préparer sargal bi ñoo ngi ci këram bu ñu añee ba pare nag. dinañ def nag ay micro trottoir ci gox bi dinañ dem ci salle ba interviewer autorités yi dinañ dem ci salle ba interviewer ñi nga xam tamit macha allah ay doomu ndey ay xartu Bassirou am Dogo lañu ngir ñu wax ñu kan moom mooy El Hadj Bassirou Thiam Dogo kon daal tey la fii lay amee fii ci Tivaouane Peulh kon ñoo ñu ngeen topp suñu caméra ñu fas yéene ànd ak yéen ngeen ñu laaj leen kan moom mooy El Hadj Bassirou Thiam. ñëw na na

alaji siam te lan ma wara sa teway am bekte rek di ñaan yalla mu dund ko ade bari ñu yag ko sargal ñew na fi ngir ñaar ñëw naa fi ngir nawle ñëw naa fi ngir tamit euh, maa ngi moom ñu bokk kër dogo muy sama xalifa nga xam ne diggante sugeer ak dingiraay benn lañ muy sama mag di sama xalifa di nit ku baax di nit ku fonk ndawle di nit koo xam ni amul benn boru nawle lépp lu xew ci nawleem boo amul empêchement foo nekk na la fekk man la fa ma dëkk la muy sori sori ñëw na ba fekk ma fa moo tax bi may ñëw fii yëguma sax coono bi ndax moom muy nawle bu baax di mbokk mu baax di ko am yëg fonk doomu aadama fii mu dëkk tamit di Kër Massar moom bëggulul Kër Massar lu Kër masaar amul sax soxlawul boo nee Bass Thiam rek dangay wax Tivaouane Pël wax Kër Massar moom fii la bëgg ñoom lay tiitaroo ñoom lay sagoo ñoom lay ndamoo moo tax ñu delloo ko lool tey kon vraiment daal kontaan nañ trop ñëw nañ ngir ndawle ñëw ngir mbokk ñëw ngir grand frère ñaan yàlla bu guddal fanam ñu ñu yàgg ko sargal ci barke yonent bi waaye sargal nan daal ku mat sargal. jërëjëf El Hadj Thiam kooku moom mooy Aldem ci dunya tey nag muy kenn ci ki nga xam ne moom mooy El Hadj Bassirou Thiam Dogo tey lu a sa teewaay. waaw euh, may nuyu Proxi TV nuyu kilifa ga fa nekk ak jëpp euh, ku fay liggéey waaye tey moom euh, sama teewaay mooy damaa ñëw fekk si sama xarit ndax ci yi nga xam ne tey ji moom la ñuy sargal ñun géwél yi ñoo ko njëkk a sargal suñuy xol. ndax nekk na koo xam ne ñoo bokk métier mi doon euh, ay communicateur traditionnel waaye mu nekk koo xam ne it euh, daf ci bokkul ak ñeneen ñi ndax ci lan ci mbaaxam ci ngoram ci teeyam ci bëgg lu baax waaye ku yéene nawleem Bassirou Thiam bëggul lekk sax bàyyi nawleem bëgg na sax fu mu lekk rek boole ci nawleem teraanga bu ñëwee mu bokk ak nawleem kooku nag bu fekkee ne tey jii fii mu dëkk muy teewoon pël ñoo koy sargal kon defe naa ne communicateurs yi ci Sénégal yëpp tey jii Tivaouane sargal nañ leen ndax sargal nañ ku baax sargal nañ ku jullite ku am diine waaye ku bëri yërmande loolu nag moo tey sama teewaay ñu koy ñaanal nag bis bi yàlla na doon jiglaayam yàlla na ko jig te it lii nekk na loo xam ne histoire da koy bind ëllëg histoire da koy bind parce que lii tâche d'huile la nga nekk ci dëkk do mooy Tivaouane Peulh Tivaouane bu ñu ko waxee commune bu mag boobu ah lan moo fi xew mooy suñu nawle sama seex ku ko xam-xam nga ma muy sama seex di sama xarit ba noppi ma wëlbati ko di nijaayam ndax ndeyam mbuur la sant tey nag waat Tivaouane Peulh ñàgg bi fi Bassirou Thiam dëkkee ak léegi ñaar fukki at la ak juróom ñoom ci seen bopp ku fi baax rek alaaji Bassirou Thiam ànd na ak yow ku fi baax bëgg nga Bassirou Thiam ku fi baax xam nga Bassirou Thiam ba ñu toogee waxtaan ci seen biir fu ñu toogee ni Bassirou Thiam ko baax la ñu ne waa tey ñu koo sargal sargal boobu nag moo war a tey bis waaye nag boo gisee tey ma teew fi teew naa fi ngir ñett teew naa fi ngir sama seex la sama jarbaat waaye dafa bokk ni fa la ñu dëkk ci Kër Massar muy département bu mag boobu nga xam ni six communes moo ko moo moo ko entouré muy commune euh, euh, Kër Massar sud Kër Massar noor Yëmbal sud Yëmbal noor ak Malika ak Jaxaay ñu former benn association tudde ko association des communicateurs euh, département de Kermassar. Massar Bassou Bassirou Thiam di président bi euh, alaaji Texa Samb di trésorier bi man Assane Gawlo mi may secrétaire général tey ñu dajaloo ñëw ngir ànd ak moom ci sargal bi nga xam loolu ñaar nañu Kër Massar ba par nag ñi fi xaar ay kilifa yu mag ndax maire Kermassar mi ngi ñëw maire euh, commune Tivaouane Peulh mi ngi ñew tay képp kuy responsable politique ngay imaam ngay koo mën a delege tey ñëpp génn nañu ngir sargal suñu mbokk mi lii nag ak jàngin la day waral nun askanu géwël am na lu yàlla def ci ñun waaye foo nekk rek war nga fa am nekk exemplaire tey ku seetaan lii wala nga fekk lii soo ñibbee bokk ci askan wi war ngaa am neneen noo taxawee ngir suñu nawle bu baax bi bihaa duratin axlaam min aljalami abdalaay ma ca gëléem ga muhammadu nooru abdalaay saybata haashimin wa abdu manaasi maaxu saymi mi déggal bàyyi sëriñ babacar si neena kilaaba murata kaabin wufiirin wa maaligin nadri wal kirami di le gerdi mel sëñ sëñ Babacar Mansour seen ñaari maam yee bokk ndey ak baay ndar-ndar bu mag bii nga xamante ni bii dëkk avenue de Grands tu tubaarkàlla baax lool di dox ndànk di dox ndànk di def lu baax bëgg ñoom ñii nag xam lu ma leen jeeg bëgg seen jëkkër ñoom laa àndal nii ak yéen ñi ngeen xam ne nag nii yéen a ko waral bu dul woon yi dara du am. mais Bassirou loo yëg tey loo yëg tey. sama yaram daa daw sama yaram daa daw ndax lii kum doyul dara dootul. am nga sa bés kon bésal bésas booya bon nangoo sa bés ndax bu nee sa bés nga wal sa Amina, Magdalene, eh,

sa loxo ca kaw allah ji saale bi I'm not about like Mustafa. nee nañ ma jox ko monsieur le maire Mamadou Ba nee na lii jox la jël ko jox naa ko joxe ko Mamadou Ba loolu wax nga Mamadou Ba ba pour la jéeri sama waa jaa ngi nii ñu ne nga joxe kàddu bi kàddu bi pour la ñaamataa gàcce sama waa jaa ngi nii bete bete baa ngi nii donc dañuy la monsieur le maire ngi nii moom Mamadou Soxna Diop waaw Mamadou Ba nee na ah waaye ana communicateur politique du jóg léegi nag beneen bi ci des nee nañu lii ma yor jigéenu commune bi yëpp nee nañu dañ koy jox monsieur le maire mu solal ko saa waa ji alaaji Bassirou Thiam. alaaji koo jox dañuy waxee li ñu joxe lan la. nee na joxe cawli na kii jàmbaar lañ ko daan solal bete bete lañ ko daan solal muur lañ ko daan solal gewal bu mag li muy def lañ ko daan solal kii baax loola du ko sol joxe du ko sol solal ko alaaj Basiru Caam Dogo Caam Dogo lañ la jox mérite ko moom mi ko solal defe nga ni njëlam maam mu njëlam mi xale diggante joxe mu mi lañ ko solal moom mi ñu ko solal amoon nga ne moom mii bu mel ko solal moom mii bu ko solal ca Malick maamam bahre danam samanam bante ganya ganyi mulange ko kar da danam Papa Basirika bogo falen ma wajor ko samba yaay jelo dogo dogo dogo Modou Thiam di jëkkëri maam maam Penda mii di gërëm nag samay dëkkandoo waa koñ bi wii wan ak xaritam bu baax bee ak jigéen ñi maanaam fay laa seen noonu mu ñëw xam naa ni sayet dina ko annoncé kon ñuy gërëm ñu dégg maanaam fay bu baax maa ngi noonu xaritu kon damay tënk rek président Mbagnick Diop noo ngi lay gërëm yàlla yàlla bëggal fanam nee ko kontaan naa bég naa waaye sama doom a ngi fi alaaj ba siru ci laa ñëwoon ci ñëw léegi ci laa bëgg ñëw sa soppe muy Mamadou Ka waaw. jërëjëf Thiam. waaw wii waat waat wii bul demagul. Sayer jërëjëf Thiam. xewu géwél mënut a ñàkk wax ndax nag tubaarkàlla càmm yow gërëmaguma la sax te duma la gërëm dama lay ñaanal yàlla sa taxawaay bu rafet tubaarkàlla Mamadou Ka di conseiller di nit ku baax fa bàyyam tegen tànkam mu teg fa bosam événement bu jotee mu wër fu bàyyam daan def mu jëf di gërëm nag Pape Sène sama xarit koo xam ni l'homme l'homme vérité di gërëm Babacar Diouf di ko am jom di gërëm nag Baye Fall ñang kooku maanaam délégué de quartier yëpp mel num Baye Fall laaj jox carte délégué de quartier ci waa pour ba mu daj ak président des délégués de quartier ñëw rek ñu bàyyi la sama xel di bu jox ko kon tubaarkàlla du ma bari waaw responsable Cissé mi ngi noonu tubaarkàlla la kon jërëjëf président ba ñu jóg yal na yàlla guddal sa fan kontaan naa dégg naa yal na yàlla dégg ci yéen jërëjëf